macha allah alhamdulilahi rabil alamin ñi ngi nuyu di sant mboolem sénégalais yi di leen ñaanal ci tabaski bi nga xamante ne moo weesu yàlla na ci yàlla def jàmm ndaxte Sénégal benn bopp ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay ci kaw loolu moo tax suñu tolloo ci bés yi mel nii dañuy sargalante di baalante àq di baal àq tamit di ñaanal senegal ñu dem ci année bii di ñëw muy atum jàmm waaye atum wér jamono ji nag dañu dugg ci loo xamante ne ja fukki téeméeri at ci lu weesu àddina dajewul ak lu toll ni mbas la boo xam ne dafa wër àddina tënk comme wérgu yaramu dëkk yi ëpp doole ci àddina bi Sénégal macha allah ci njëlbeen gi am ci taxawaay boo xamante ne àddina bi yëpp da ko rafetlu waaye nag bëri dëkku dakkul lu ne xaj na ci ndaxte boobu ba léegi itam première vague am na fi deuxième vague dugg na tey ñu ngi ci ñuy wax troisième vague ñun ñi nga xamante ne dañuy nekk ci mbiru santé xam nañ ne feebar bi feebar bu doy waar la li ko doyloo moom mooy feebar boo xamante ne day soppeeku sibiru xam nañ ko def na ay ati ati ati at ay téeméeri at waaye ni feebar bi di soppalikoo beneen feebar soppalikoo ndax ci njëlbeen ba dafa amoon benn bu ñu doon wooyee njëlbeen bi feebar bi corona rek la woon moom mooy doon njëlbeenu feebar bi doon na laal askan wi doon na rey tamit waaye na mu doon gaawe amoon na as tuut desoon na ñaareelu vague bi mu am beneen variant maanaam soppiku soppar ñu ko ci kanam xar kanamam ñaareelu vague boobu am yeneen beneen variant bu dugg ñu doon ko woowee variant britanique waaye tey variant yëpp yoyo boole moom mooy euh, sud africain britannique ak tey beneen variant bu bees boo xamante ne ci li moo gën a gaaw gën a tar ñuy wax ne variant delta variant delta boobu nag Eh, yàlla def na mu tënk askan wi bu baax a baax tey nag moom ñaari taxawaay moo am benn bi mooy li waa kër docteur wax ci njëlbeen ba tey moom mooy mesure barrière mesure barrière yooyu nag ci niñ ko gisee ci taxawaay moom mooy dandante moytu nit ñi di dajaloo dajaloo yoo xam ne du farat lu dul farata nañ ko bàyyi te suñuy dajalee tam ci dajale farata na jël nit ñi dandante ba pare takk seeni mask loolu daal moom mooy li nga xamante ne ala kuli al mun naa nag dina téye waaye mun naa wàññi law law ni garab gi ni feebar bi di lawee ñaareel bi mooy nit ñi nañu nangu dem ñàkku ci tey dëkk yi nga xam ne am nañu ñàkk te ñàkku seen koom-koom mi ngi dooraat ndànk-ndànk ñun nag ñun sunu koom-koom moo attanatul beneen tënku bi ñu xam nii loolu moo tax nit ki su fekkee dafa am luy ñëw ci yow te mënoo te mënoo koo dékku góorgóorlul ba nga mataw jël say matuwaay ba mu la bañ a faagaagal ndax su exsiwaatee Sénégal war a tënkuwaat loolu maa mara taali dina sax sonal bu baax askan bi ak koomu Sénégal te ci foofu nag ñu ngi gën a sonal mooy ñu néew ji doole yi te néew ji doole yi nag sama njaboot da cee bokk muy artisanat loolu moo tax ma ne kuy sénégalais ak sama mbokk artisan yi nañu jéem seen kéem kattan ba mesure barrière yi maanaam li nga xamante ne moom la ñu digle ñu ne ca ñaareel bi tamit ñàkk bi su excès ngeen dem ñàkku ji te wóolu waa kër docteur fu fekkee li nga mës a def dalaa mës a gis da nga cee mës a gis njariñ bu ko soppi Sénégal lu ñu mës a gis moom mooy dañ daan ñàkku kër docteur ñoo daan wax ñàkku leen ñu ñàkku waaye léegi xam-xam yu bees génn na ku ne nekk nekk na docteur ku ne nekk na professeur di génn naan bu leen ñàkkoog bu leen def nii yow amoo ci xam-xam ki am xam-xam ne la defal soo bëggee mucc toppal li nga xam ne mooy diggalu kër docteur te kër diggalu kër docteur mooy ñàkku dëkk yu mag yi nag ñoom ñoom ña ngay ñàkk ñu nag fii ñu ngi laam-laamee yow président nag mi ngi def kéem kattanam pour que ñàkk yooyu nga xam ne dafa ñàkk mu dellu si waat am na bu génn bu yegg si euh, ba ci bésu euh, euh, bés benn fan avant tabaski am na boo xam ne démb la si ci bésu tabaski bi am na yeneen yoo xam ne ñu ngi koy xaar ci biir fii ak weer wi dee am na yeneen yoo xam ne ñu ngi koy xaar ci biir mois d'août bi président la république ak ministère de la santé. li ñuy def seen kéem kattan pour que fu vaccin ne ñu indi ko en attendant ñun ci suñu bopp ñu mun a tabax defaral suñu bopp suñu vaccin muy autonomie vaccinal te loolu incha allah voilà 2022 di tëru dinañ ko mun a amal suñu bopp aar suñu bopp aar mboolum Afrique.